jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ko gisandoo noonu mu doon kooko di Amadou Ba foofee rek sa dëkk bu sell ba di Touba Mbacké mel na nag ak concurrence moom nag ak fa doon amal wala sax doon yuuxu trop Ousmane Sonko libéré libéré Ousmane Sonko mel na nag loole jamono ji war naa booy seeni nopp ndaxte nag saa su ne dañuy nemmeeku fu mu mënti demit des ko fay dégg beneen bi nag mu doon ay bracelet fian patriote di Sénégal yi xamante ne seen rek nag saa su ne ña nga ko doon gis foofee bitim réew mel na nag daal dina yegg si fii si réewum Sénégal ba tax patriote yi ña ngi koy yëkkantoo di ko jënd rek di ko takk muy ay bracelet yoo xamante ne si ne Ousmane Sonko 2024 mu doon ay bracelet xamante si dafa am ay jeux d'élimination beneen bi nag moom kookee du Ousmane Sonko nekk si prison bi ba tey di yëngal si biti gi mel na dafa nekk si biti te saa su ne ñuy gis li nga xamante ne si ne ay actu yi xamante ne si dafay mel ne kooku di Ousmane sunko mi ngi si biti te teewul ma nga sa biir kaso ba mel na rek ba tey kon population bi des ka jox bopp bu baax a baax moom kooku di Ousmane sunko tam def kooku di candidat Bassirou Diomaye Faye élection yi